ca bàkk ba jib na wasaare làmb tàmbale na jàngat làmb départ na ñuy nuyu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan wasaare làmb moo xam nga ne ci réew mi ak bitim réew fu waaye nekk ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax ni leen koy defalee saa su ne noonu la ñu fas yéenewaatee tey euh, defal leen ko muy seen jàngat làmb di lundi au samedi euh, ñu ànd ceeg jii li di ci waxtaan ci lépp loo xamante ni dañ koy jàngatee ci làmb commencé ko ci ci écrit yi wàcc ci leader écrit yi tey ñu dal ci benn écrit boo xamante ni wala ñu dal ci gox boo xamante ni euh, kenn du tudd làmb bàyyi leen ginnaaw muy géejawaay géejawaay nag euh, dégg nañ titre bi du roi des arènes champion bu mag ba Balla Gaye 2 moo ko fa dugal tey mu bokk ci loo xamante ni taarix dañ koy nettali euh, roi des arènes ki ko njëkk a indi géejawaay ñu ne Balla Gaye 2 le fils de Double Less tey ñu fas yéene waxtaanee ci ñeneen ñoo xamante ne ay champion lañ nekk ak Balla Gaye 2 ci écurie ba wala ñu départandoo ci mbapat tey combinaison ñu dem tey boo xoolee combinaison yu bari ci làmb euh, duñ ci duñ leen ci boole euh, ku ci mel ni ak euh, Lac Lac de nga xamante ni Boy Niang depuis sortem moom Boy Niang ba tey gisaatuñ ko ci làmb def na ci année blanche ba yeneen mbër yi ñu ngi am combat ku ci mel ni les de les de nga xamante ni champion la ci làmb les deux mën a bëree doon jàmbaaram bëri fi ay ndaanaan yu ne ci làmb su ma fàttali ko stade Demba Diop digganteem ak euh, Boy Niang numéro 2 nga xamante ni keroog làmb jooju làmb ju neex la malgré booy Niang moo ko daan mais keroog indi na jàmbaar indi na fit indi na fulla ak fayda maa ngi fàttali ko tamit ba tey stade Demba Diop moom les de tàkk saanam bi mu bëree Garga nga xamante ni daf cee wane boppam. daan Garga Mbossé bu amul benn werante mu daan ndaanaan ndaanaan daan ko parce que Boy Niang numéro 2 moo ko daan mu daan Garga xoolal position Garga ci làmb fi mu toll nii euh, promoteur yu bari dañuy bëgg combat Garga Mbossé ñu ci bari ñu ngi doon coow diggante Garga Mbossé guy gi ñu ci bari ñu ngi doon coow diggante Garga Mbossé ba tey fi mu toll nii diggante combat boobu di gargamboose Mbossé daanaka mën nañ ni euh, déggoon nañ ci kàddu combat ñu ci bari euh, jàpp nañ ni taxaw na kon taxaw na ñuy ñuy siyaar bu baax a baax a baax Pape Thialis mi nga xamante ni moom moo ko tëgg di borom Leewtoo production tey ñu gis les deux boobu euh, combinaison yu bari bu ñuy boole ci làmb duñ ko tudd lan moo waral loolu promoteurs yi ñoo ko boycotté wala làmb moo ko ñoo sentiratul les deux ci géewu làmb wala amateuru làmb yi bu ñuy def seen combinaison ci làmb dañuy fàtte les deux xamante ni tey champion la ci làmb keneen koo xamante ni euh, ba tey ma nga biir géejawaay te it kenn du ko présenté ci làmb kooku mooy euh, Elton Elton bëri na fi ndaanaan bu ne boo fàttali ko tàkkusaanam ba mook tafaatin stade Demba Diop nga xamante ni malgré ñàkk na combat boobu waaye wane na ci ngar mi ak njàmbaar moo xamante ni da xam ne làmb moo demee noonu sport la waaye sportu njàmbaar la sportu ngar mi la sportu borom fit la ak boroom jom la tey ko ku mel noonu di Elton war nañ ko mën a euh, fàtte ci làmb wala euh, war nañ mën a toog tëgg ay combat mbër yu mag te duñ ci boole Elton combat ténor yépp Elton waroon na cee mën a bokk parce que Elton am na ci ndaanaan yoo xamante ni war naa mën a bëre ak ñoom depuis sorteem ak euh, ki nga xamante ni mooy rëg-rëg ba tey gisatuñu ko ci làmb géewu làmb sax gisatuñ fa jëmmi Elton lan moo waral loolu dafa jàpp ni dafa découragé ci làmb wala ay naataangoom dañ koo bàyyi ci làmb wala dafay bëgg adversaire du leen mën a am parce que Elton ñu ngi doon dégg combat bi ñu doon démarré diggante ma Gris 2 euh, dégg nañ coow li ci li ci jot am ba combat ba mujjeewul a am tey am na ci yeneen adversaire am yoo xamante ni bëgg nañ ko ci làmb te ay xale ñu ngi fii ñoo xamante ni ku leen wax combat Elton bëgg nañ ko mais promoteurs yi lañ bëgg a waxtaanal promoteurs yi lan moo tax à tout moment yéen suñu mbokk internet yéen ñuy seetaan lan moo tax à tout moment promoteurs yi duñu wax duñu waxaale ak mbëru géejawaay yi Euh, ñu jóge ci Elton euh, nga xool ku ci mel ni Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 xoola diiran bi mu toog bëriwul ci làmb euh, may nuyu sama papa pa Xaadim sàmb nga xamante ni moo tëggoon diggante mag ñàkk jariñu combat bu mu jéewu la am waaye gisul Alioune Seye 2 champion bu mel ni moom nga xam ni combat ba yandaa fële ci stade Diop Iba Mar keroog làmb ju neex la diggante ma musaa Ndoye keroog ku ko gis xam ne Alioune Seye champion la dafa am wax joo xamante ni daf koy wax nee na làmb bu doon sëriñ man ne tarbiyoo naa ko ci côté bu nekk tey ba tey làmb moo ko deseel mais li ñu bëgg a xam mooy promoteur yi lan moo tax duñu ñu démarché te am Alioune dafa am mbooloo Alioune Seye loo mën a wax dafa am mbooloo bu bu déparé làmb nga gis mbooloo mi koy topp ba biir këram signature contrat dafay jaay làmbam dafay neexal ba mu neex te Alioune Seye ku ne xam ne ni ndaanaanu bërekat la tey gis nañ ay promoteurs yoo xamante ni dugg si nañ ci làmb euh, ku ci mel ni jam production moom it nekk xale boo xamante ni mu ngi tëgg ay làmb dem na bay tëgg ay combinaison ku dëgg ku tëgg euh, xoyantaan ak ma Mandione fële ca Gambie mu doon làmb ju neex boo xamante ni ba tey duñ ko fàtte euh, li ko yàq rek mooy cat cat nag moom euh, dafa dafa garaaw cat dafa garaaw moo waral làmb ja ñu dem ba Gambie ñaari mbër yi simeeku ko bëre mu la am seen diggante mais tëggoon na événement boo xamante ne événement bu am solo la moom jamaïcain mu ñëwaat fii ci Dakar tëgg fi komba bu neex muy diggante euh, Franc ak Bébé keroog Franc moo daan Bébé Saloum mais gis nga ni xale boobu mu ngi def ay jéego dem di demarché ay combat dem ba bëgg Balla Gaye 2 ak Boy Niang dem ba bëgg Garga Mbossé ak Sa Thiès dem na waxtaan ak ñoom xëy na combat bi moo antuwul woon moom jamaykee moom lan moo tax mënul dugg biir géejawaay ku tëgg mel ni ku mel ni Elton tëgg ku mel ni Les 2 tëgg ko mel ni Alioune Seye 2 tëgg fa yeneen daanaan yi nga xamante ni Elton yeneen daanaan yi nekk biir géejawaay nga xam ni ñoom ak Balla Gaye ñoo débuté doo ci làmb ba tey promoteur yi di leen bëgg a fàtte ci làmb ñooñu seen combat dafay neex ku ci mel ni euh, Pape Sarr bu Pikine Pape euh, gis nañ ko mu bokk ci benn sculpture euh, ànd ak ñoom di di di organiser làmb parce que làmb yi ñu tëgg malgré que neex na bari na parce que bu boo xoolee affiche bi rek bu njëkk bi euh, ku ci mel ni euh, euh, ne ko réel ne ko réel moom nga xamante ne moo nekk Langsar nga jël ko boole ko marle bu géejawaay nga xam ne loolu rek làmb ju neex la làmb ju neex la beneen làmb ji ma ci gën a dàqal mooy diggante wuli wuliwaat ak aadama juuf nga xamante ni loolu tukk sa mën saañ ba réer la combat boo xamante ni ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk combat bi pourquoi pas ñoom ñooñu ñu dem seeti mbëru géejawaay mbëru géejawaay war nañoo taxaw xoolaat taxaw seetlu lan moo waral promoteur yi di leen boycotté ku mel ni Lac de war naa mën a toog ak jaloore bi mu def ci làmb ba moment bi déggagoo benn combat Lac de Guiers adversaire yi nga ko waroon jox ñëpp ci làmb daanaka mën nañu ne combinaison yooyu ñëpp am nañ combat kon war na mën a xoolaat surtout Lac de Guiers 2 warul toog benn année boo xamante ni bëriwul bu dee ci moom la na defaraat toogaayam parce que lak euh, boo nekkee say moromu naataangoo ci kom ci làmb saison bu jot ñu tëgg combat Balla Gaye saison bu jot ñu tëgg combat Eumeu Sène saison bu jot ñu bëre combat Modou Lo te saison bu jot doo dégg communication la de guerre wala faw mu def année balance benn yoon deuxième euh, deuxième saison bi mu bëriwaat bokkul ci ci loo xamante ni mbër mu mag war na koo def Modou boo xoolee palmarèsam diggante daaw bëri na ci ñaari combat bëri ci journée bu neex saison boobu ci benn saison boobu ci la bëre kii nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 daan ko moo du dëpp dem jëli ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène Eumeu daan Eumeu Sène moo lay wan ni Modou Lo ah, am na loo xamante ni mu ngi koy def mais bëri la bëgg mais mu ngi wane ni dafay liggéey liggéey bi muy liggéey nag moo waral euh, combat mook Balla Gaye 2 bi mu ko jëlee am defet ñu ci bari ne woon nañ warul woon jëlaat Eumeu Sène parce que jàppoon nañ ni euh, dina ci daanu mais daf cee wane njàmbaar wane ci ngar mi wane ci mën a bëre euh, ba ba daan Modou ba daan Eumeu seen keroog am ndam lu rëy ci digganteem ak Eumeu seen keroog stade bi nga xamante ne mooy Léopold Sédar Senghor foo sànni mbatt mu takk mu yóbbu roi des arènes bi yóbbu ko ak manière daan Eumeu Sène dóor ko mu daanu tey kooku Modou war na leen yee Modou at bu jot gis nga combinaison bi saison bi ubbee rek ñu mbër yi njëkk am combat Modou ci la bokk. xaw ma nag ay agent ñoo baax xaw ma ba xam ci moom la euh, mais lu mun ti xew mooy Modou mu ngi xool plan de carrière mais mu ngi xool ni muy liggéey parce que ku jugee ci Balla Gaye 2 mu daan la nga daan Eumeu seen bu la neexoon nga aju feneen mais dafa tourné jël Ama Baldé parce que xam na ni moom Ama Baldé combat capital la derby la diggante Parcelles ak Pikine ba pare teg bëri Ama Baldé doon xale nga may ko sens ba pare teg titre bi du roi des arènes ñoom ñaar nag malgre ñoom ñaar yëpp ay ñaari xale lañ waaye làmb ki la ci gën a raw rek mooy doon sa doyen mooy doon sa mag ci làmb pas mag ci âge mais Modou mooy mag Ama Baldé ci làmb fi mu toll nii parce que adversaire yi Modou Lo bëreel Ama Baldé ak ñoom adversaire yi Modou Lo laaleel Ama laalewul ak ñoom Ama tamit laale nag ñoo xamante ni ay ndaanaan lañ te Modou laaleegul ak ñoom su ma ko commencé ci Tapha rek nga xamante ni Modou Lo laaleegul ak moom te ku tudd champion tudd ko mbër waaye nag loolu lañu amoon lu ñuy indi ku ci mel ni Alioune Seye 2 Alioune xool ko ba tey fi mu toll ni combinaison yi départ na euh, bëri na combat bu métti diggante ma ñàkk jariñu làmb ja mujjeewu la am jaañu na jotul reliquat am am na ci ay blessure euh, supporters yi am na ci ñoo xamante ne mer nañ parce que jëmi am Alioune Seye gisatuñ ko ci làmb mu doon loo xamante ni dafa war a bëre parce que Alioune dafa war a def dimanche bu jot mu tooyal xaftaanam ndax munoo tudd ay champion ci làmb doo ko tudd kon léegi lan mooy seen problème Elton làmb nag kenn du ko booleeg dara làmb dafa fiir làmb moom lépp loo ko boole rek mu bàyyi la ak loola kon ñoo mbër yi nga xamante ni ñoo dëkk géejawaay ñoo mbër yi nga xamante ni euh, ñoo téye fi mu toll ni flambeau géejawaay nañu génnaat taxawaat làmb comme niñ ko taxaw parce que secret bi lenn la rek mooy mbër yi doo dem ci écrit yi ba fekk leen fa doo dem ci ci ci ci géej gi ba fekk leen fa parce que am na ci ñoo xamante ni certes bu ñuy entraîner léegi yenn heure yu guddi yi la ñuy entraîner euh, bëccëg gi duñ ko def wala bëccëg gi yenn heures yi ñu dem salle de musculation mais mbër yu mag yi nañuy wàcc ci ruum gi di dem ci stade yi di entraîner di contact comme seeni morom. Euh, loolu lañ leen indiloon ci jàngat bi ñu leen doon defal ci écurie bi nga xamante ni mooy géejawaay euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci wóolute gi ngeen am ci wasaare làmb euh, mbokk yi di leen jaajëfal encore une fois di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb deuxième partie bi nag dinaa ci ànd ak Ousin ñu waxtaan ci école de lutte père Cheikh ba tey école de lutte Cheikh Mbaba la ñu fas yéene waxtaanee waxtaanee ci seen bilan. waxtaan ak ci écurie bi waxtaan ak ci lépp loo xamante ni euh, xew na ci làmb kon mbokk yi ngeen ñu dég ñu rek niis tiis ma ànd ak Ouzin ñu ñu jàmbat ñu jàngat làmb ji ci écurie Cheikh Mbaba jaajëf di leen jaajëfal ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko ba kanam incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen